jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb mbàkk ba jëbati na ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax mbokk yi ñoo ngi fii ci Ndangaan Samb fekk leen fi benn gala boo xamante ni depuis samedi ak dimanche la woon démb la woon les yi waaye tey la luuy mbokk yi ñi ngeen gis si biir mooy les yi huitième de finale lañ départ ndax démb dañoo commencé ba huitième de finale ñu arrêté tey dañuy commencé huitième de finale ba final ñu arrêté luur yi commencé Yane Production nag moo ñu woo fii teg mise bi un million cinq cent li mu leen ko wax rek Wassare lamb lamb dong moo ñu intéressé moo ba tax na fu lamb am wala foo xamante lamb dafay xoyam xoyame dañ leen dem jëlal leen ko andiñ leen ko di leen ko jox muy tàng te neex maa nag sama caméraman bi kàggu l'infatigable xam naa nag weekend bi moom dina lamb soxna si waaye lamb demee noonu di leen dox dig daje ba ci kanam ñu wan leen yi fi am ak yi fi am ndaanaan yi fi tase sama gars ba ci kanam. mbokki abi bi sifle waat na da kay mboot wala lu koy def mboot na ko jël am na wala amagul oh, xale baa ñoo ngi bëre da lay tegal wër na la ndombo wër na ko ndombo eh de prise ba xajal ko daanu oñ na ko takk na ko da koy biij moo ngi koy biij ba roof na caxabal ba zongale na ko roof na caxabal ba waaye dugul xale yaa ngay bëree ku nekk ngay déglu sama ñoom ñaar

moo ko koy jël jël na tànk ba daan na ko daan na ko da lay daan. Kalmu nuyu naa la. waaw maa lay fay maa ngi lay fay bu maa si jàmm bu maa si jàmm. mais dañ la gëj a gis nga wàcc ci lutte simple démb ñu gis nga andi Boy Niang est-ce que du loolu la poussé nga toog. non du loolu sax ñun moom ay doomu séeréer lañ ñun xamuñu dara du lii mbabat bu dul boore arène bi ñu ngi si mbabat mi. comment ah, sama doomu day dafa xewle woon rek moo tax ma bàyyi lépp ànd moom gunge ko ba def jàmm waaw ma door a continuer sama parce que ma xewlee noonu lay def waaw mais naka nga gise làmb ji parce que làmb ji gars yi dañoo namoon làmb ba gis na gis nañ ci mbër yu mag yu bëri yoo xamante ni waataat nañ ci lutte simple bi amateur yi tamit namoon loolu gisoo tey lënd la mais fii moo ngi fees del noo gisee loolu waaw gis ñun moom dañoo namoon làmb bilaay wax di sant amateur yi fi tase yëpp di sant borom ku tëgg làmb ji yan ba suñu grand la suñu lépp la suñu xarit bu ñu amee combat dañuy jàppale comme bu tegee lii dañoo war a bàyyi lépp teewal ko waaw loolu moo war a suñu teewaay làmb ji moom nee na fi yëpp ay naataangoo kese fi ne ñu ñëpp xamante nañ suñu biir waaw mais tey lan nga nar. rek comme d'habitude rek man moom fii moom sama géew la waaw damay géew rek yóbbu ko rek incha allah suñu dëkk man faa ko. est-ce que dina yomb. non fii mënul que ay naataango kese fi nekk ku nekk daal liggéey ñëw surtout ma ouverture bi nii day neex waaw. baax na ba kanam. jaajëf waaw. naan de. mais fan yii ñu gis ne mais dafa mel ni affaire yi neexagul de. ah ah ah naqariwul itam de. non mais neexagul ndax boobaag léegi gisaguñ dara. Ah, gis nga ko. mais naka nga gisee làmb làmb Fatick parce que gars yi namoon nañ làmb tey lënd la mais gis nañ stade ni mel naka nga gisee làmb ji. ah làmb neex na bëri na nit waaw boo gisee da nga xam ne gars yi dañoo namoon làmb trop waaw. mais noo gisee ndaanaa ne tey fii baax tey dina xaw a kii yooyu. waaw loolu ndaanaa amul loolu ndaanaa ah. loolu gëmu ko. Ah. waaw kon tey dina neex ci sa côté. ok la ah. ok merci beaucoup. âge de 12 ans si àll. la waree Baye Fall bi. mais naka naka fan dafa mel ni amoo lamb avec frappe moo tax nga wàcc si lamb simple. waaw waaw waaw fan yii amaguma nag mais am na bu may waaj maa Youssou Ndour bu lebu gi. waaw waaw. mais gars yi dañoo namoo lamb parce que gis nañ tey lundi la mais dañoo gis fii ni mu feesee euh, lan ngay wax amateur wala lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo lay suivre ci wasaare lamb. waaw mais xanaa santaat yàlla suñu borom rek di bëgg sëñ Tuubaa bu wér a wér sant amateur yi parce que ñoom duñ découragé benn yoon barke sëñ Bamba ñoom ñoo ñu dooleel ba lii nii parce que ñun tamit lii nii xam nga suñu joob bu xawee noyé benn côté bi rek ñu dañuy xaw am problème barke Serigne Touba Mbaax ñun ñëpp ñu ñëpp dañoo gëj a bëre war a soo ñëwee doo xam sax loo a def barke alxuraanu karim ñun làmb ñu dugagum yëpp échange gisaguñ gisaguñ dara moo tax dañuy wër di compétir rek pour affaire yi ñëwaat barke sëñ Bamba ñu gisee démb nga ñëw mais da nga ko xaw a perdre repère mbaa loolu Ah, waaw yëngal sa bopp non tey mu ngi baax barki sëñ Bamba ah. tey kay ren di rek a ah, baax na ba ci kanam bon sang nooy demee incha allah am nga jàmm sant yàlla bu wër démb ñu gis la nga jël ko tey nga takkaat ngemb li lamb laa gëm damaa gëm lamb dama kaa tax ngemb li bëggoo fendi billaahi ma ko sañoon du fendi mais noonu gisee lamb Joal parce que tey dem dimanche la woon tey di lënd mais soo fi li mel naka gisee lamb Joal non lamb ji moom mun naa lamb Joal neexoon na bi itamit mun naa neex itamit ndaxte commencé gul quoi waaw. mais tey lan lañ mën a xaar ci Doudou Sané. ah comme d'habitude rek compétir rek ñaan suñu borom man ñu ndam yóbbu ko Diofior quoi loolu mooy suñu fierté quoi. mais est-ce que parce que démb man est-ce parce que démb da ngaa ñëw jël affaire yooyu yóbbu nga ñëw gars yi force ñu bàyyi la xel est-ce que dina yomb. ah bu yombul tamit ci ñoom la rek man moom damaa ngemb si. ma lu yomb ak lu lu métti dama gëm sama bopp. kon tey mënuñoo xaar Doudou Sané bu bees sax. billaahi. tey lu bees ngay andi billaahi xool li ci kanam rawal bët quoi. ay na Doudou Sané. ok merci beaucoup am na ay champion moom. grand la. Kalmu Ndour. ndaanaan la. da ngeen daan. waaw naa. doole ziar bu wërë wërë di la sant bu baax. gis euh, ba ki démb nga nga nga samedi ak dimanche. yóbbu final poids léger euh, mais gars yi génnoon na ñëw seetaan si la kaw. waaw kooku gars yi génn nañ massivement waa Joal yëpp ñëw nañ. sirancé ma dimbali ma jàppale ma baax baax yokk ma courage bu ma jël laa ma ji te tamit dafa ne noonu tamit tey ñëwaat nañ ma tamit danañ jël rek seen jàngalu tas man mais confiance bi ñu am ci yow parce que démb bi nga bëree ba noppi génn di dem daanaka ñu bay dañoo yaakaar làmb dafa tas ndax xaaju nit ñëpp génn topp la loolu lan la waaw dama seen doom rek dina jox luñu bëgg ñoom ndam lañ xam Joal moom ndam lañ xam mais jox luñu bëgg tamit may fexe ba tout même su daanu sax ñoom duñ mer dañuy courage parce que làmb sama combat moom mais bëre jom ak fula ba lu yàlla def ma jël mais du ma arrêté ma daw. mais lañ mën a xaar ci yow lu raw lu rawul démb rek lu dàq démb. tey du yomb de. non fii daa yomb fii. Ah. lu yomb a toog suñu kër. waaw <laughs> lu yomb. waaw ah, baax na bonne xañ ko xañ na ko takk lu mu koy que di nga ca génn est-ce que nga ca génn ah jàppante nañu jàppante mbot na ko da koy daan daan na ko mbot na mu daanu lan moo am daan na ko waaw waaw daan na ko waaw waaye nanguwul mooy dem ci am mais sànq dama gis nga bëyeeg waa ji daan combat mu rëy moo xamante ne affaire bi lan la. ah sant yàlla rek ndax ñun mënuñu dañuy jéem rek. mais lan lañ mën a xaar ci yow tey. waaw ah, di ñaan yàlla mu may ma ndam rek si lii ma jublu te incha allah rabbi dañ koy indi. waaw ah, baax na bonne chance. jaayoo merci beaucoup.

ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar jël na tànk ba jël na ba lu mu yor daanu na daanu na jël na ba daanu na waaw waaw làmba nga xool ko moo ngay tuus te yàlla Doudou Sané ngoog xoolal Doudou Sané yaa ngoog tey lamb nduur mbëri seen yaram daa tàng waaw ayca kalmu <laughs> du saana jaar nii kalmu nduur jaar nii xoolal ma lii Calme Ndour Doudou Sané ambiance ba ngoog mbokk yi abi sifle na Mbaye délégué Ousmane Diop Mbaye délégué mën na jàkkaar Ousmane Diop ko yeñ Mbaye délégué Ousmane Diop Mbaye délégué Ousmane Diop Mbaye délégué moo ñu woon ginnaaw moo ngemboo ngembul xonk li moo ngemboo ngembul weex bi Ousmane Diop moo ngemboo ngembul rouge li Ousmane Diop moo koy rëpp na kadaa bi jeex na wala jeexagul mbay délégué woon na ko ndomb ba du ci dina ci génn mbay délégué Ousmane Diop xale yaa ngay bëree mbay délégué Ousmane Diop mbay délégué daw na jël ko waat na ko ndomb mbay délégué waat na ndomb Ousmane Diop ba du la mbot du la ba plaqué na daan na ko mbay daan na Ousmane Diop Pape Wally a 15 ans Pape ans 15 moo féete à gauche ki moo lu xonk li Babou Waly à 15 ans ñoo ci demi-finale poids léger yi mel ni am na ku génn final ñaar ñi ci daan dem final 15 ans ak Babou Waly Babou Waly jël na tànk bi léegi waaye daa bañ jàpp na ci loxo bi fa mu jàpp baax na moom Babou Waly fa mu jàpp baax na 15 ans yi doon daw plaqué na ko plaqué na daan daan na ko. Pape Waly daan na dem na final. Doudou Sané Joal. Doudou e Sané Cheval mbokk yi Cheval mooy fas Doudou Sané ak Cheval mbay délégué El Hadj alaaji maam mbay Délégué Mbaye Délégué lu muy wax ak abi bi alaaji maam Mbaye Délégué alaaji maam di nga am fee Doudou Sané ak alaaji maam alaaji maam mbokk yi abi bi àtte na Doudou ñoo ngi lewaatoo jàppanteeguñu Doudou Sané Cheval Alaaji Maam Mbay délégué ci digg géew bi Cheval Doudou Sané Mbay délégué Maam demi-finale poids léger Doudou Sané poids lourd moog Cheval mbokk yi Mbay délégué Alaaji Maam Mbay délégué daw na jëli ko boog Alaaji Maam daw na jëli mbay délégué mbay délégué jël na laaj maam mbay délégué daw na jël ko waaye sottiwul hey dégal mu boobu ambiance mbay délégué alaaji maam mbay délégué mbay délégué war nañ la ndombo ba doo délégué mbay délégué alaaji maam da koy caxabal wala lu mu koy def daan na ko alaaji maam daan na mbay délégué

Grand Mbagnick à droite Bébé Mbissine Grand Mbagnick Bébé Mbissine Grand Mbagnick bu yàggee ay dóorante leen du abit bi leen def leen ndànk abi bi sule waat na ci diggante Bébé Mbissine ak Grand Mbagnick ñu gën koo ci Calme Ndour Bébé Bébé Mbissine Grand Mbagnick combat bi yàgg na Bébé Mbissine Grand Mbagnick Bébé Mbissine jël na tànk Grand Mbagnick Grand Mbagnick daanu na Grand Mbagnick daan na ko Bébé Mbissine daan na Grand Mbagnick Beye Mbissine Beye Mbissine mbokk yi abit baa ngi ñoom Papa Ngane ak Léo Papa moo féete à droite Léo moo féete à gauche abit bi sifle na Papa Léwo mbokk yi moo def rasay ci bopp bi Papa moo mel ni man Papa Ngane Léwo waaw Papa Ngane Léwo eh fàtt na ko Papa def nii fàq ko mu jàll bu ko Léwo tartay Papa Ngane Léwo Papa Ngane mi affaire la de. Papa Ngane mi la affaire na ko Papa jël na tànk Léwo Papa jël na tànk Léwo Léwo taxabal na ko Papa Ngane Léwo waa Papa def nii Papa Ngane Léwo eh Papa Ngane de Papa Ngane jëlaat na ba eh Papa Ngane nee na dafa niin abit bi ne ko bëreel Papa Ngane Léwo eh Papa Ngane Papa de. <laughs> Papa Ngane Léo Doudou Sané Ngok Papa Ngane Papa Ngane Lewo Papa Ngane mbokk yi moo jàkkaar ñu Lewo moo féete gi moo ñëwoon ginnaaw ñoo ngi ci poids Papa Ngane Lewo Papa Ngane Lewo Papa Ngane ñu jàkkaar lool moo ñu wan ginnaaw Papa Ngane Lewo 12 ci digg géew bi Papa Ngane Lewo Papa Papa Ngane jël na tànk Lewo jël ko daan ko Papa Ngane daan na Lewo Papa Ngane daan na Lewo daan ko ba war na la romb dalay daan dalay daan dalay daan dalay daan dalay daan war na ko ndombo est-ce que dina ca génn oh da ngay daanu daanu maa xiis 12 ans Rakhis 12 ans quart de finale bi maa ngi ci am Doudou Sané seen combat bi yàgg na tarxiis douze ans Malxiis Franc Malxiis seen combat bi daa yàgg am na ngemb 12 ans jàpp na ak Malxiis eh li muy force nii lu mu doon 12 ans ak Malxiis 12 ans lan la bëgg a def nii 12 ans lu mu bëgg a def nii da koo bëgg a na fii 12 ans 12 ans da ko bëgg a xar baadoo daanu daanu nga 12 ans 12 ans daanu na 12 ans daanu nga 12 ans daanu nga 12 ans daanu nga 12 ans tey làmb Birame Mbissine Doudou Sané Birame Mbissine Doudou mbokk yi combat bi metti na Birame Mbissine Doudou Sané Birame koy jéem a forcé waaye Birame Mbissine daa bañ plaqué na daan na ko plaqué daan na ko plaqué daan na nee na ko ayca ayca Ousseyn Barxis ak El Hadj Ndiaye. maa ngi fekk sëñ Babacar. Barxis ak El Hadj El moo jël moo jël moo jël Joal démb. El Hadj Ndiaye. bi. moo jël final poids léger ba. ndaanaan la tey dafa ñëw xool affaire yi yaraax mu dugg ci li nga xamante ne bii mooy luur bi. poids luur bi ndax demb bi ñu bëree fi léger moo ngi woon fëy di bëree finalam ba. ndaanaan la. man xiis mbokk yi moo jàkkaarloo ak ñun El Hadj moo ñu won ginnaaw. ñoom ñaar daw nañ jàppante. ñoo ngi bëree El yaa ngi noonu. ñoom ñaar ku ci daan yaa nga demi final ku ci daan am naru bu duun. ah ku ci daan koy am. ku ci daan mën nga am Doudou Sané ndax Doudou Sané dem na demi final. Malxis ak El Hadj Ndiaye mbokk yi. dafa mel ni ñu ngay final ba nga xamante ne bii. mooy poids léger yi. waaw est-ce que lee du final léger bi. final léger bi la. waaw kee daa mel ne la. attention. Malxiis. oh Malxiis Elhadj Ndiaye. du 4 ak El bu ñanga Marxis ak El bu ñanga kon dañoo ju mbokk yi. du El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye ñëwaatagul. Marxis moo ngeen moo ngeen bu vax bi. cay nday Fatou Adama Jali yëngal na ndangaan Samb tey déglu ko rek amateur yuuxu nañu. loolooy ambiance u lamb oh. lamb noonu abi bi sifle ci diggante Makhis ak Elaz bu ñanga waaw waaw cey gars yi seen yaram tàng na bëre leen ñoom ñaar daw nañ tegante bopp Makhis Elaz Makhis ak Elaz Maris combat am nag du yomb. déedéet ndaanaan la. oh Birame Mbissine nag noonu am na lu ko métti. ki ko daan mën naa daan ku ne. ki ko daan mën naa daan ku nekk. ndaanaan kulli fadrin la. Doudou Sané ku mënta daan ci làmb amul. amul. wallaahi. attention xale baa ngi koy jàpp. ma ngay jékki-jékkal mais rasu na waaw mbokk yi. Marxiis ak El buñ El Hadj. waaw waaw. El ak Marxiis mbokk yi ñoo ci digg géew bi. ñoom ñaar ku ci daan demi-finale ngay dem Ousseyn. ñoo ci quart de finale yi kon sëñ Babacar. eh Ndiaga gi noonu sama doom baay borom suñu lamb. borom reportage yu neex yi arbitre bi siflewaat na

Sango ak Makhis mbokk yi ngi noonu ci diggi géew bi attention ñoom ñaar xale baa koy rentré mais bañ na El Hadj ak Makhis El Hadj bu ñanga ak Makhis El Hadj mbokk yi moo ngee moo ngee bu lu vert la Makhis moo ngee moo ngee bu lu vax bi

Maxis daan na ko laay la la na ko Maxis daan na ko daan na ko daan na ko daan na Alaaji ngi ca demi-finale daan na ko dem na demi-finale mbokk yi ñoo ngi ci finale poids maa ngi ceeg sëñ Babacar boom Leewtoo production wala Leewtoo TV Alaaji Maam ak Waly bu Sima alaaji maam waalum simal ñoom ñaar ay ndaanaan lañu nag alaaji maam moom lañ lool moo def tent bi ci bopp bi waalum simal moo ñu won gannaaw mbokk yi loolu mooy final poids léger bi ay ca Ousseyn doxalal ba ca kanam ñoo ngi lewaatoo mbokk yi wala boog ñoo ngi xoolante ci biir bët alaaji maan ak waali simal lamb jaa Alaaji Maam moo tent bopp bi waa Aliou Simal moo ngemboo ngembul vax bi daamal tëj la nag eh ndaanaan la daa dëgër ndaanaan la Babacar waaw waaw lamb noonu mais li ma gis li ma gis Ndangaan Samb mosuma koo gis fii lamb ngi fi jigéen ñu bëgg lamb. lamb ngi fi ma ne la day faatu Adama Jale day way ñuy fecc di ko sànni xaalis billaay lamb ngi nii. Oh. li dañ koo namoon. wallahi li mooy lamb Alaaji Man Waly bu semaine finale poids ngi noonu waaw waaw Ndanka Samba ngi noonu Sénégal dañoo namoon lamb amateur yi namoon lamb supporter yi namoon lamb mbër yi tamit namoon lamb jàkka jàppante ñoom ñaar bilaay waxati ko Alaaji Man simal mooy final léger bi. final léger bi ay noonu. mise bi un million cinq cent la. léger bi dañ leen di séddale cinq cent mille. ah yéen a ko déggandoo mbokk yi. luur bi ñu séddale leen un million. loolu am na solo Mbaye Babacar. loolu am na solo. alaaj Faye. alaaj maam alaaj maam ak ki nga xamante ne bii mooy waali bu simal. alaaj maam waali bu simal combat bi ndax final la. déedéet mënut a yomb sax nag Mbaye Babacar. lii final la kenn du wanteer. dañuy jël seen temps di ko cons ndànk-ndànk. doo bëre ba ñëw ba fii di ko asaaloo. déedéet waaw waaw. mbër bëre. ñu mbër maa nga noonu kàggu. waaye mbër bëre Mbaye Babacar. noo daa gaañu ci loxo. yaa ko wax. non champion la wante daa mën a ñàngal nag. alaaji man ak nga xamante ne bii mooy Waly bu simal final poids léger fii ci Ndangal Sambu waaw waaw Abdou Sène nuyu naa la Serigne Dia ma nga fële ca marché Ndoumbe Diop. alaaji man taw ko. attention tul da lay mbot de tul ay tul da lay da lay mbot alaaji maan alaaji maan alaaji maam est dina ci génn jël na tànk ba oh gis nga jàkkaarloo waat nañ maam moo koy saxal tànk bi da koo mënee da tànk bi daa bëgg su jëlee tànk bi mu mboot ko alaaji maan waali simal final palese oh. xale yaa ngay bëree ambiance baa ngay daw ca côté ba. lamb jaa ngay neex. cey Gane production. ma fàttali leen ko tey lundi la le 29 mars lamb fi mu toll nii amatul samedi ak dimanche may Babacar. tey jour ouvrable la wante gars yi dañuy seetaat dañuy consommer lamb boo ñëwee fii ci Ndangaan foo sànni mbaat. dama jag jag jag jag waaw. tey lamb yi am na doole. lamb jaa ngi noonu. waaw waaw Ousmane Faye ca Argentine dam nuyu naa la cay déggal ña ca suñu gannaaw ña ngay yuuxu oh alaaji man koy vidé oh, oh. plaqué na ko daan na ko waali daan na alaaji waali daan na alaaji da koo plaqué daw ak moom da koo oh waali daan na Alaaji Man. oh doole doxul jàmm waay. ñu dem ci demi final poids lourd yi. léegi nag dañuy dem ci demi final poids lourd yi xanaa. demi final poids lourd yi. fay naa la. ñu gis sa tournoi bi yombul woon ndax depuis démb la woon ak tey. noo ko noo ko waaje woon. ah tournoi bi waaj ko bu baax moom. ak sama mbokk quoi waaj naa ko nu mu waree. waaw ba tey yàlla may may nu ñam quoi. waaw ngay wax ñi lay seetaan ci wasaare lamb. kontaan bu baax wasaare lamb dañ koy suivre de. waaw waaw di nga ko suivre ci kaw ci kanam rek waaw. jaajëf kontaan nañ ci ok jaajëf. noonu. Doudou mooy demi-finale wante beneen demi-finale ba am nañ fa élage waaw cey loolu. Doudou Sané ngi noonu mbokk yi hélas ñaari demi-finale yaa ngi noonu ci digg géew bi hélas mooy bëri demi-finale bi jël na ba jël na ba lu koy def lu mu koy def da koy wër ndomba da koy yéen la koy def wër na ko dina jeex wala du jeex daanu na abi signalé na El Hadj Ndiaye na Adama Goudia Diaz a ngi noonu démb moo jël final poids léger bi tey moo ngi ni dem final moo dut saane mooy noonu ci biir cumbukaayam ànd ak waa Joal Fadiouth El Hadj Ndiaye mbokk yi moo dem final waaw tasante ki nga xamante ne mooy dut saane Elas waaw Elas. dëgg la dëgg Elas secret bi lan la. waaye secret bi entraînement rek liggéey. liggéey kese la de dara. mais dafa mel ni yaa dem final yaa ak Doudou Sané. waaw waaw noo dem final. ñoo war a bëre final bi nii. mais final du yomb. seetaan naa leen seetaan lekk fii amul lu métti. Ah. fi dara méttiwul fi. mais est-ce que dina yomb final bi. dara méttiwul fi li gën a yomb ngay gis noonu. Ah. lu gën a gaaw gën a yomb. sa bopp gën sa bopp kese entraînement gëm sa bopp. ñëpp fësal ko mais gis nga jël fi nga xam ne mooy woon final les sabar. waaw tey nga bind luur. waaw loolu moo tax nga ñëw fii bind luur. non man damay alterner quoi li ma bëgg lu ma bëgg a lese. dollar nga da ngay yéeg di wàcc. <laughs> waaw comme noonu rek yaa gën a xam mais Doudou Sané. waaw ki nga xamante ne a bëreel. Doudou waaw boo nee ma daan ko benn yoon. daan moo jël final poids lourd bi tey dem final Doudou Sané looy wax gars nga war a daje xale boo xamante ne moo jëlul final poids léger bi nga jël final poids lourd bi. waaw ah, lamb la rek. dañoo ñoom pour rek waaw. baax na dégg nga nee na lamb la final bi tey du yomb mbokk ñoo ngi noonu ci préparation bi El Hadj ngi noonu am na lu ñu koy takkal ci loxo bi moo ngi noonu di dugg ci Doudou ngi noonu mbokk am na lum ko tàllal El Hadj Ndiaye Doudou Sané dem ñaa ñoo final El Hadj mooy final poids léger jël ko Doudou Sané final poids lourd tase fii ñoom ñaar làmb jaa ngi noonu cee làmb Doudou Sané am na lum ko joxoñ léegi am na butéel buñ ko ebbil moom Doudou Sané mu naan Doudou Sané El Hadj final poids lourd noonu mise bi de 1 million 500 fii ci Samb cay lamb mbokk yi ma fàttali leen ko te le 29 mars gala bi commencé woon na depuis démb. mbokk yi mbokk yi ñooy noonu ci digg géew bi mbokk yi ci digg géew ak El Hadj bi ci diggante Doudou Sane ak El Hadj. Doudou Sane ak El Hadj Ndiaye moo bi Doudou Sane moo jël foil poids lourd bi mbokk ñoom ñaata ñoo tase fii El Hadj Ndiaye Doudou Sane Doudou Sane El Hadj Ndiaye noonu. Doudou Sané eh Doudou Sané jël na ko Doudou Sané jël na ko El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Hadj Ndiaye El Hadj ree Doudou Sané dafa jàpp loxo ba daw plaqué ko ñu daw ba génn. Doudou Sané El Hadj ñooy noonu mbokk yi El Hadj Ndiaye Doudou Sané Doudou Sané El Hadj Ndiaye mbokk yi ñoo ngi fii ci Nangaan Samb final poids lourd noonu yan mooñ fi woo tey bi di 1 million 500. El Hadj Ndiaye El daw na jël ko El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Hadj Ndiaye eh El Hadj Ndiaye Doudou Sané na ko war na ko ndomba eh, El Hadj Ndiaye Doudou Sané <laughs> man daal Doudou Sané bu la fàqee war la ndomb. bu la waree ndomb rek ñàkk nga. Mbaye Babacar. Doudou Sané war ndomba mooy fooram. kenn moom. wallaahi ku mu war ndombo ñàkk nga. Doudou Sané. Doudou Sané. Doudou Sané El Hadj Ndiaye ñoo ngi fii ci final poids lourd la mu saf ko ko mate ko xam ñoom ñaa ñamante nañu léegi Doudou Sané El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Mbaye Babacar final baa ngi noonu. ay waay bi final. final baa ngi noonu Doudou Sané El Hadj Ndiaye. El Hadj Ndiaye démb moo jël final léger ba. Doudou Sané jël final poids ba. ñoom ñaar ñu daje fii ci Ndangaan Samb di bëre final poids lourd. Lamb jaay noonu Mbaye Babacar. waaw waaw combat bu neex. El Hadj Ndiaye nee xanaa dollar nga dangay yéeg di wàcc mu ne waaw su ma neexee bindu lourd su ma waaye Doudou Sané ngi noonu oh du El Hadj jël na ko mais Doudou Sané est-ce que xawul diis tuuti El Hadj Ndiaye. Doudou Sané diis ci El Hadj Ndiaye. da ko doon bët. moom kay mën a bëre mais Doudou Sané yëngatuwul yoon. Doudou Sané El ak El Hadj Ndiaye final poids lourd fii ci Ndangaan Samb. ñooy noonu mbokk yi fàq na ko Doudou Sané fàq na ko waaye El Hadj Ndiaye daa bañ. Doudou Sané crochet na ko ca kaw. Doudou Sané El Hadj Ndiaye. bàyyante waat nañu. awla bàyyante waat nañu. ayca. round d'observation la ñuy def. ku ci nekk day déglu sa morom. ku ci nekk dangay ngay jàng sa morom El Hadj Ndiaye fàq na ko léegi ndengeñ na ko ñoo ngi ndengeñante. Doudou téye na ci loxo bi. Doudou Sank nee na ma daan naa ko benn yoon El Hadj Ndiaye ma daan naa ko benn yoon. moom El Hadj Ndiaye. nee yoon. dafa mel ni xam. xamante nañu ñoom ñaar. Lamba jaa ngi noonu El Hadj Ndiaye Doudou Sané. Doudou Sané El Hadj Ndiaye fii ci Ndangan Samb. final poids lourd. Ndeye Fatou way na fi lu neex. ambiance bi daw. amateur yi kontaan. waaw waaw ñun reporter yi sax dañoo kontaan. ndax Ndeye faatu aadama li muy woy dafa neex. ci xol lay jóge moo tax suñu bii xol yi lay dugg may baaba. lu jóge ci xol ci xol lay delluwaat. du saane nga yëngu. ñu naan ko yàggaayu. waaw waaw. way yaa ko dugg. El Hadj du saane. bu ñu jàppante rek war naa mën a jeex. kii jël final poids léger bi kii jël final poids lourd ba làmb jaa ngi noonu. loolu démb la woon ca Joal Fadiouth. tey ñu ñëw teew fii ci Ndangaan Samb. mu mel ni tey dañoo ñëw ñoom ñaar dañoo ñëw confirmé. ah dina leer léegi léegi. mi-temps. mu bañ. waaw waaw laaj nay sixième ndax pare nan suuf la na génn seen diggante ñoom ñaar. El Hadj Ndiaye Doudou El jaay ak Doudou Sané. final poids lourd fii ci Ndangane Samb. cey lamb. lamba ngi noonu. waaw waaw. fi ñëpp a ngi ne tekk. ñëpp a ngi ne tekk di déglu. waykat rek ngay déglu ak géwél yi. bëre wàllu teen la. ku ñëw ci pin ba ngay yam. lu mu metti metti ci gannaaw la ñuy taxaw. takk ngem bu ñu naan la soo demee defal nii. soo demee bëreel nii wante boo demee yow rek yaa xam la fekk ca biir géew ba. billaay. cay lamb. du saane am lu muy jat di ko teg ci bopp El Hadj Ndiaye. waaw waaw ma ngay ñande ma ngay jat. tey Doudou Sané. El Hadj dagg na la waa Tooba déplacé waaye tey am na client moom moom Doudou Sané. Elhadj Ndiaye ma leen dafa. Eh, Doudou Sané ko génnaat na. Doudou dafa diis Doudou dafa diis Elhadj Ndiaye. Doudou dafa diis. dafa diis mbay. Elhadj day daw dugg mais du am dara day génnaat. waaw waaw. attention Doudou ak Elhadj. Doudou Sané ñu naan ko Xaddaafi. barke démb gis nañ ko arène ak ar ar arène nationale. Serigne Ndiaye ko éliminé. quart de finale lañ ko éliminé mu mel ni yaram yaa ngi mandi bëre nag ci semaine bi. Ah, ah. dañoo namoon làmb. wallaahi. nee na ma Babacar. Doudou Sané El Hadj Ndiaye. mu ne ma sama bu bëgg ma fendi attention Doudou. El Hadj Ndiaye ko El Hadj Ndiaye koy añ. El Hadj na ko. El dafa diis Ouzin. dafa diis may Babacar. Lamb jaa ngi noonu. final poids lourd.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 waaw waaw Doudou Sané El Hadj Ndiaye El Hadj jàppul na ñaari loxo ci gaño waaw waaw Doudou Sané jàpp na tekk di ko déglu Doudou ndengeñ na boo xoolee bopp ba bolig El Hadj la ko teg. waaw El Hadj Ndiaye tekk di ko déglu Doudou añ na ko léegi Doudou Sané añ na ko léegi El Hadj rasu. Oh. Doudou bu siggee rek war naa mën a jeex. Doudou Sané ngi wàcc. waaw waaw. El Hadj Ndiaye la. El Hadj Ndiaye biij na ko léegi waaye demul. waaw waaw. Doudou Sané El Hadj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 Doudou Sané lamb ji yàgg na El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Hadj Ndiaye Doudou Sané am na ñaari loxo ci ngemb ndengeñ ñaari loxom ci ngemb jël na bi léegi mu bañ jàpp bi daa yàgg waaw abid atena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 Duusane El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye nga koy manœuvre Duusane waaye dafa diis. waaw waaw. Duusane fàq na ko léegi oo El Hadj jël na tànk ba léegi Duusane doo ko tànk du ko doo tànk mbay baaw ka temps ba jeex na temps ba jeex na. Duusane moom mu yee am ndam. Oh. maa ngi ci jàmm. mais tey nii nga def dafa baax sax. ah tey nii dafa baax laa. yére wolof bi xanaa. waaw ah. ah, gis nga tey def affaire wolof rek mais xam nga man ay joolaay tàkk. <laughs> soo nu mu demee tey dañoo gis fi stade bi dafa fees. secret bi lan la. secret bi mooy li ko ëmb. li ko ëmb mooy lan. li ma waxoon ci départ ba moom laa continué lépp lu ma ci jëlee ci bénéfice dama koy delloo ci askan bi mooy ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw muy case de santé yi muy ñi nga xam ne xëy na defuñ yàlla dara mais mënuñ satisfaire seen i besoin lii bu ma jëlee nii ma jéem ko partager ak ñoom. mais dama gis ne tey lundi la mais teewul nit ñi dañoo bàyyi seen yitte ñoo seetaan si làmb ji mooy waral ne gars yi dañoo namoon làmb muy mbër yi di amateur yi. mooy li ma wax rek xam nga làmb moom mbër yi mbër yi lii mooy seen salaire amuñu salaire lii mooy seen salaire ñu toog nag lu toll ni attaque lu topp fekk corona bi nekk bi ñuy ñaan yàlla aussi corona bi yàlla jëlee ko fi parce que yàgg na fi trop. mais yàlla mi nga xam ne dara teewu ko yàlla na ko fi yàlla jëlee mbër yi nag ñàkkoon xaalis parce que seen liggéey moo woon amateur yi képp kuy séeréer da ngay bëgg làmb moo tax xëy na ñu woote rek ak xëy na base bi base bi mooy jël xaay bi jëf ko ci nit ñi yàlla day wuyu. mais ñu gis bi dafa mel ni bi mooy sa première édition ci saison bi. waaw waaw mais mooy ubbee ubbee bi la ñu ubbee quoi. waaw bi la ñu. ñaata journée nga waaj ci saison bi. non man am may li may wax. tant que le temps permettre na ma ko ma am moyen def ko parce que dama ne lépp lu ma ci def ci social laa koy def waaw man à la base man informaticien la man informatique laa jàng <laughs> donc lii xëy na lu dugg sama sa passion la quoi ak bëgg a jàppale nit ñi te sama loxo jotul sama ginnaaw ma xam loo xam ne xëy na bu ma ko créé am ci dara mën a jàppale nit ñi. maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw Diop Kañ rek comme séeréer mais yow séeréer nga walla waalo waalo. non da ngay ñëw ñu def la séeréer. ah jërëjëf nangu naa neex na de. neex na trop neex na trop.